roi de kii mu ñëw non dafa ndànk bàyyi ma egg rek man non mais attends pour ma dagg bàyyi non mun ma waxee buuba arrête arrête de dire buuba mais pour ma dagg sama gis gis gis li may wax li may wax nii lu leer nañ la gis gis seetaan ah, xam ne lu leer lu leer nañ te yow bu leeree trop du baax ah, <laughs> dama ne dama ne dama ciy revenir la dama ne. <laughs> revenir ci oto ça six mois spot yaa ngi daw. si spot bi c'est un roi bu yónni dagam. waa ji ne damaa bëgg trône bi kenn newu ko doo roi. kenn newu ko waa ji kii. waa ji dem xeex ak moom dóor ko mu daanu. jël kii bi ne man maay roi ñu ne doo roi c'est le roi parce que moom moo gagné roi bi te kenn bi bi muy bi ñuy am prétention yi moom laa lay wax manque d'organisation pourquoi ah, pourquoi médecin après la mort le gars mu gagné Eumeu Sène ne man maay roi des arènes bi ñu koy wax déggoo ci CNG te représentant CNG Bouba Ndour a ngi ah toog représentant baa ngi toog mm. Eumeu Sène a ngi toog euh, Malal a ngi toog euh, euh, Modou Lo ngi toog um, kenn waxul dara waa ji gagné dóor waa ji mu daanu mu ne mën maa kii on a compris mais c'est débat non non c'est pas un débat li ma wax nii leer na nañ Bouba man pare naa ci yow duñu si si dara c'est un éternel débat parce que parce que cela a été dit depuis Yekini bul xajamal li Yekini Balla Gaye 2 kanaan ko fi yor Tyson benn précision par rapport c'est ça contexte mis au contexte aussi moo tax ngay waxee nii. bu contexte bi li ma gis rek laa ma nii on ne revient pas on ne la validité euh, du titre de Modou En fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais. Non, non, il est le roi. C'est une création ouais. de la presse. Mais, mais, mais, et Charles l'a dit. Voilà. Mais est-ce que mais est-ce que ñoom génn nañu benn communiqué Non, est-ce que génn nañu benn communiqué pour dire au oh, au ah, ah, oh, oh, bàyyi leen di wax li parce que day induire gars yi je veux dire je te passe la parole entre dire. Est-ce que génn nañu communiqué pour dire lii nii ñu ngi koy wax depuis lii waru leen ko wax même Yékini mais yow xanaa tu ne suis pas même Yekini il a dit que il ne reconnaît pas Yekini je dis c'est depuis Yekini Yekini il l'a dit Balla Gaye il l'a dit léegi sport bi jàll na euh, sport bi ça ah. TFM a def sport non du TFM de c'est le promoteur boo xam ne ñoom la signé contrat ñu jox ko pour mu organiser combat bi hmm. moom moo dem euh, defar euh, kii mu leer nañ seen bët te kenn waxu ko dëgg ngeen bañ a dégg par rapport ak Alioune Sarr il a toujours été constant. waaw ah, moom il est constant moom Aliou Sarr dafa mës a gëm ne critères yi tax na nekk roi des arènes depuis toutes ces c'est la position du prétendre nekk roi des arènes est-ce que mérité nga pas c'est un débat qui s'ouvre est-ce que dóor koo xamante ne tout le monde est d'accord que c'est lui le roi des arènes. Ah oui. est-ce que tu n'es pas roi. si c'est des questions mais qui se posent. si moo tax man j'ai fait man mos naa animer sax benn émission spéciale sur la problématique du roi des arènes. allez Pape Djibril ça n'a jamais été il n'y a jamais eu de réponse Pape Djibril mais pour man. gis-gis la amuñu suñu problème non gis-gis bi ah non ah may ma terminer. non non tu n'as pas la parole. dans ce pays là on a de l'expertise partout. non attends gis-gis. tu passes la main quoi. Papis passe lui passe lui la parole. liberté d'expression c'est quoi c'est pas Papis. maa la dàq bëri bu ñu. Papis léegi ma door la. Papis s'il te plaît bu ñu yàq sama pari. j'ai un pari j'ai un pari minuit laa bëgg bëggoon arrêté minute deux allez allez Pape Djibril en 30 secondes s'il te plaît mais de moi je souscris totalement par rapport ak li Bouba wax euh. boo ne euh. yow la ñu dénk la gouvernance de cette affaire encore une fois gouvernance boo ne boo ne boo ne boo ne boo ne boo ne doo gouvernance mais à eux mais à eux bu fekkee ne dem na ba koy wax rek mooy cautionné na ko mais à lui de nous dire wala à eux de nous dire quels sont les critères qu'il <laughs> faut remplir pour être roi ou pas les jours Pape Djibril Fall siffle la fin de Jakaarlo merci ba àjjuma incha allah. <laughs> mais